abonné wu leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne dal leen ak jàmm mbokki internet yi nga xam ne yéenay teewlu Buzz Media TV la chaîne des patriotes bu leen fàttee dal di abonné dal di bës cloche a yi def fa ay kër dal di koy bi ngir actualité bu ñu dugal nga doon ki nga xam ne yaa koy njëkk a jot ñu dooree way xabaar yi ak mbirum manifestant yi nga xam ne ñu ngi takkar naa loolu jamono ji ci réewum Sénégal ndax dafiy yem am day continuer jamono ji saa yu ne guddi gi ak bëccëg gi ngoonement bi yëpp dañuy gis ay manifestant yoo xamante ni métti na lool démb yi dafa métti woon lool ci guddi gi ko waral moo ne ndaw ñi dañoo jóg ne duñ tëdd li fekk libéré wuñ Ousmane Sonko ko continuer lépp lu ci wadd rek daana laa ko jox comme ay xabaar fii ci Buzz Media TV fii seen de patriote waaye nag mbirum Ousmane Sonko ba tey jii ma ngay wéy di rekarnaase wér gi yaramam xam ngeen ne jéggi na dayo toog lu mat huit jours lekkoo naanu loolu xam ngeen ni métti na lool ci doomu Alé Niang yegg nañ ab xabaar boo xamante ci ni grève de la lay dund moom ak ñiital Pastef yi nga xam ne ñoo ne ci biir kaso bi waaye nag li gën doy waar ci mbir mi nga xamante ci ni nag moom lañ leen di toppal muy mbirum manifestant yi tey jii am nañu yaakaar ne loolu dina takarnaas li ko waral kan moo di Pape Alé Niang ma ngi gu métti lool fële ca kaso ba nga xamante ci ni fa lañu ko tëcc li ko waral kan moo moom dane woon dafay commencé grève de la faim maanaam dootul lekk waaye it dootul naanati li fekk libéré woon njiital Pastef ak détenu yi nga xamante ci nii ñoom la ñu jàpp ak moom mi ñu jàpp te jàppee ko ci ci jaay doole goo xamante ci nii àddina bépp ñoo ngi koy yi nga xamante ci ni am na ci Ndakaaru Njaay fële ca Ziguinchor ne dafa amul ma nga fay am ndaw ña dañoo baari yoon ya tali ba ne benn oto du fi jaar li fekk libéré wuñ njiital Pastef Ousmane Sonko waa Casamance ndax dañuy dund ndax dañuy dugg ci xeex bi mu déet lu ni mel moom daañu leen ko toppal dana nekk lu doy waar démb président bi nga xamante ci nekkat nekk na ci réew mu sori ñëw na ci Macky Sall kenn xamagul kum doon waaye nag dafa ñëw ci Macky Sall ngir dal di koy wax ne ko jàmm waaye ki nga xamante ci nekkat bokk na ci sëriñ nga xamante ci ne ñoo nekk fële ca Bignona ñëwoon na jëm ci pare ngir waxtaan ak président Macky Sall la mu fa yëkkati nag mooy kàddu ko yeneen kilifa yi doonee damaa ñëw ngir bëgg ni dafa ñëw ngir bëgg bokk ci ñi Sénégal atum 2024 xam ngeen ne daanaka ñëw na le 25 février atum 2024 la ñuy xëccoo réewum Sénégal ba tey ji xamaguñu kan ak kan a war a bokkoon lu ni mel ñoo nga koy signalé fii ci Touba Xayri da li ko waral kat moo di xam ngeen ni dañoo bëgg ñoom it ñu libéré Ousmane Sonko ñoom nag du ñu yëkkati xeer du ñu sànni yoruñu ay grenade lacrymogène kenn du fi xeex waaye ñoom li ñuy wax dañu koy wax àddina bi ko dégg nañ libéré Ousmane Sonko Sénégal jàmm rek la ñu fi bëgg képp koo xam ne daal yaa ngi topp Buzz Media TV la chaîne des patriotes fàttee dal di dugg ci commentaire yi ñaanal Ousmane Sonko waaye nag li gën a am solo moo di abonné bi